ma neel asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa sëriñ bi nee na asalaamualeykum ngi nuyu waa waar wi sëriñ bi nee na mi ngi bi. li waral nu yëkkati ñu kàddu. sëriñ bi nee na li waral nag mu yëkkati ay kàddoom. c'est du jaay. Hmm. Ah. Hmm. sëñ Baara. sëñ Baara. Eh, yaa ak sëñ sëriñ bi nee na jataay bi dafa baaxoo. ku eh, ku njëkk feeñ rek. te ñam ñu def ko muy kilifa ak man mii ñu jëwriñ ji. sëriñ bi nee na moom mii ñu def muy jëwriñ ji. ñii fi sant faal kii fi mag. ñii fi sant faal kii fi mag. Eh, muy turandaw sëriñ Tuubaa wii. di sëriñ Daam Faal Saaliw. li tax may wax bi sëriñ bi nee na liy tax nag muy wax ci rajo bii mbaa tele bi. day soññe rek. waaw nit sëñ Ablaye. day am sëriñ bi nee na day am kàddu goo xam ni. ku mën a tax mu sori. ku mën a tax mu sori. te sori la yow. te sori la yow. tey kàddu yu soññee. tey kàddu yu soññee. nga sawar a wax ak moom. xam nga télé bi dafa yaatu. sëriñ bi nee na bi dafa yaatu lool. day jot day dem fu dem nag fu bëree bëri. joti na ci barab na nag ci barab yu bari nee na. ca liggéey bii ñu nekk. liggéey bii ñu nekk nag. di liggéey ñëpp di liggéey ñëpp. di liggéey fépp. di liggéey fépp nag. kon nag ku joti fépp nag. sëriñ bi nee na kon nag fu joti fépp nag. ci misaal misaalum wolof rek la ko waxee. ci rek la ko waxee nee na. nu suñ borom rek a joti fépp. waaye noonu rek la ko sëriñ bi nee noonu la ko mën a misaale. dañoo bëggoon liggéey bii képp koo xam ni. sa yaakaar. ci Serigne Touba la nekk. nga dégg sa nopp. nga dégg ko nag ci sam nopp. gis ko ci sa bët. jëf ko ci say cër. jëf ko nag ci say cër. loolu kat sëriñ bi nee na loolu la yéene murit yi. moo tax nag bu ab rajo dikkee. bu ab rajo dikkee. wala ab télé. wala ab télé. ni dañoo bëgg nag ñu wax ak ñoom. ñu sawar nag te la sëriñ bi wax ak ñoom. ndax dañuy bëgg nag ñu tasaareel ñu ko ba mu yaatu lool li ëpp ci réew yi yëg nañ liggéey bii Serigne Touba di liggéey loo waa kër Cheikh Ibrahima Fall muy liggéey bi nga xam ni ku ne xam na ni barab bii day adduna moo baaxoo barab dina njëkke loo xam ni du ko mujj de la fi xewoon wala boog la fi daan xew fii lu metti woon ci xolub ñu baax ñi la woon. barabub ñu baax ñii. ak barabu ku ab ak barabu nag ku baax kii. nga lu ci nekk dafa bi. nga xam ne nag lu ci nekk dafa jàkkaarloog barab bii ñu ne. waaye ñu defoon ko barabu fooyukaay. waaye nag ñu defoon ko barabu fooyukaay nag. waaye ndeke booba. waaye ndeke booba. dafa am am nag melokaan wu ci Serigne Touba bëgg. te suñ ko deful suñ ci deful loola. loola du mën a am. bëggug sëriñ bi sax moom faw dina am rek. waaye kon nii mu gaaw a amee nag. du ni gaaw a amee moom. ku dem nag moo tax. ñi fi daan def. te lañu fi daan def. dëppoowul nag ak bëggug sëriñ Tuubaa. loola nag moo waral suñu borom soppeeku nii. nga xam ne nit ku baax ku fi ñëw. la muy jëkk a def mooy. sant nag boromam. ndax xam gum ko xamoon. ci ci ak njëlbeen. ci lañ fi daan def. ak nañ ko daan defee. nag. ak lañ ko daan ak lañ ko daan defee. ak ña ko daan def sax. ak ña ko daan def sax wallaahi. soppi gum soppi gum soppi ko nag. turu yàlla wii ngeen di dégg. ak ñeenti tëgg nga tëgg nga xam ni. Ah, tëgguñu tëggum kuy fo. tëgguñu tëggum kuy fo de. ñoom dañuy bàkke. ñoom dañuy bàkke. mas naa tëggal kuy fo. mas naa mënees naa tëggal kuy fo. mënees fecc. te mel dënn ma lay doon. te mel dënn ma lay doon. waaye ca defin lay doon. waaye nag ca defin wa lay doon. sëñ Baara sëriñ bi nee na yaa ngi dégg loolu. xam aw métit. sëriñ bi nee na kanam gi wane aw métit. aku naqar aku naqar. ak kanam gi wane mbégte. ak xam nga genn kanam gi. genn kanam gi rek la nee na. waaye day am ko borom di def noo xam ni. am nag nu ko borom di def noo xam ni. soo ko gisee xam ni. soo ko gisee. kii aw métit xam ni kii moom aw métit la yor. am nag nu mu ko def noo xam ni. boo ko gisee. di nga xam ni kii nag moom ci mbégte la ne waaye sëriñ bi neen lépp de genn kanam gi rek la daa am nu mu ko defee rek rek ku yor aw métit na kanamam di mel ak ki yor mbégte ni kanamam di mel sallaahu sëriñ bi neen na genn kanam gi rek la waaye na muy feeñe nag ba nga mën koo xam noonee nag moo dul bokk mooy barab yu ci baree bare bari rek waaye sëriñ bi nee na barab bii ñu nekk nag ci la bokk. kon sëriñ bi nee na yéen ñi nga xam ni. da ngeen a yor télé yi. wala rajo yi. ñëw nag ba ci liggéey bii. ñii ngeen fekk ñoom. am siiw lañ leen di def. am siiw lañ leen di def. kaddu yi yéen xam nga sëriñ bi nee na kàddu yii muy wax yow da leen a xiixaanoon. mel ni da leen a bëggoon a dàq. waaye fekk na. waaye fekk na. Ah, lii ngeen di def lu ko ñor la. ni ma waxal ci liggéey bi. ni ko waxal nag ci liggéey bii. te mu bokk nag ci jëwriñ liggéey bi. te mu bëgg nag ñëpp yëg liggéey bi. su ngeen ñëwee nag te man koo yëgle. li folo li wolof yi naa faf nag. looy wëri nag mu ñëw fekk si la far benn yoon. loolu sëriñ bi nee na loolu la ci jublu. waaye sëriñ bi nee na yéen tam nag. Ah, da ngeen di jël fu bari. da ngeen di jël fu bari. di jël lu bari. di jël lu bari. di jël ñu bari. waaye jël lu mel nii nag. waaye jël mel nii nag. ak jël fu mel nii. jël fu mel nii. ak jël lu mel nii. ak jël lu mel nii. loolu nag sëriñ bi nee na moom yombul de. ndax ah, day am loolu tabb dul ko man. ndax sëriñ bi nee na day am loo xam ne tabb dul jeexle moo ko man ndax ki xool liggéey bi ci télé bi képp. ndax ki xool liggéey bi ci télé bi képp. te lam wax dëgg ci moom. te lam wax nag di dëgg ci moom. nga xam ne làmboon na ci mbégte. nga xam ne làmboon na ci mbégte. ci gis gi mu gis rek. ci gis gi mu gis liggéey bi rek. mbégte mam ciy bég. ciy bég. suñ borom da ko jay pay pay gu tol nii. ñi doon jëf-jëf ji. ci loolu kenn mënu ko kudd sa borom nee na. jëf jii ñu ma jëfal. koo xam ni bëgg nga ci. dinaa la ci pay pay gu toll nii. payug ñoo ko doon jëf. te du yàq nag ci seenu pay dara ñoom ña ko doon jëf. loolu sëriñ bi nee na tab bu dul jeex la rek ko man ci wallahi dëgg la moos fal tab bu dul jeex rek ko man sëriñ bi nee na bari na ñoo xam ni. bi seen bët tegoo ci liggéey bii. xool giñ ko xool liggéey bi. ñu nga ca réew yi sori waaye baaxe nañ leen ba. seen jëf moom tàbbisi na ci liggéey bii. ca loolu nag. télé bii. ak téléphone bi. dong moo leen ko won nekk ca Allemagne. mbaa ca Sapone. mbaa ca Amérique. ñuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa nag liggéey bu toll nii. sun borom nag boole la ca. Eh, ba nga bokk ca ba nga bokk ca. sëriñ bi neen loolu ndey lot na ci liggéey ko de. bàyyi lot na ci liggéey ko. ndimbalu suñu borom rek la. sëriñ bi neen day am lool. Ah, sëriñ bi nag moo ko ñaanal boppam. suñu borom nag nangul ko ko. te da koo may ba noppi nag. mu soog koo ñaan. ndax ku dul sëñ Tuubaa rek. da ngay ñaan suñu borom. mu nangul la lan ko ñaan. wala nga ñaan sunu borom. wala nga ñaan sunu mu gàntu la la nga ko ñaan. sëriñ bi nag moom. sëriñ bi nag moom. day ñaan lu mu bëgg lu lu mu bëgg lu ne. suñu borom da koy defal. suñu borom da koy defal. na mu ko bëggee. na ko bëggee nag. ba noppi ba noppi nag ni ko. lii ma la may nag. lii ma may nag. ñaan ma ko ci. la ilaha illa hmm? bëggal ka ngay jox weesu. bëggal ka ngay jox weesu ko wallaahi dëgg la mos fal. sëñ Baara sëriñ bi ne ne yaa ngi dégg loolu. sëñ Assane Mbodj. <laughs> sëñ daam. Mbodj ak Fall waaw sëñ daam Fall nga ne toog. sëriñ bi nee day soññe rek kàddu yi soññe rek la doon wax. Ah, song mii mu leen songoon. du tee nag sëriñ bi nee na mu wax ak yéen de. ndax lim ci jub sax jublu ci lim ci jublu sax mooy. Ah, lu bon lañ daan def. lu bon lañ daan def. ñu di ko dégg nag ci rajo yi. lu bon lañ daan wax. ak lu bon lañ daan wax. ñu di ko dégg ci rajo yi. bi télé bi dikkee. bi tele bi dikkee. mënees naa xool tele bi. mënees naa xool télé bi. mere ko ci giiwet. mere ko ci giiwet. waaye mënees na ko xool tam. waaye mënees na ko xool tam. gërëm ko ci geewet gërëm ko nag ci geewet. ndax dafay indi. ndax dafay indi. lu bon loo xam lu bon loo xam ni. dañ naan leen. yéen ñi daan def yéen daan def lu bon. yéen ñi daan def lu bon. te xamu leen nu koy xamu leen nag niñ ko daan defee. nii lañ koy defee nag. loolu moom télé bi rek la koy won waaye nag lu baax la ngeen daan dégg itam te mënu leen ko woon nii lañ koy defee soo xoolee ci googu wet mën ngaa gërëm télé bi su la neexee xool ca gee wet tam ŋàññi télé bi. ndax lu bon lu ne ñooñu ko jàngal. waaye kon lu baax lu ne ñooñu ko jàngal. Ah, bu doon rajo kese bi rek la. lu bon loo ko jéem-jéem do soo ko mënee faw dina am lu des moom mm, sëriñ bi ne li ngay jàng ñu won la ko moom mm. Mm. li ngay jàng ñu won la ko nga teg sa bët bokkut ak nag li nga xam ni dees la koy jàngal ci kumpa li nga janool muy lu baax ñu won la ni koy defee moo gën a yomb fop liñ lay jàngal tamit lu baax ñu di la ko wax képp kon nag li mu fi indee woon lu bon li bi lu baax li ñëwee teñ di ko wane moo tax nag sëriñ bi nee na ñu bëgg ci lool loolu sëriñ bi nee moo tax ñu sawar cee wax nag sëriñ bi nee moom daal mi ngi soññ murit yi fu télé bi egg fu ne te ña fa nekk. seen yaakaar nekk ci Serigne Touba. nekk nag ci Cheikh Ibrahima Fall mii. ñoo ngi lay soññ ci liggéeyu Serigne Touba bii. bii nga xam ni. nu nekk. ak lu nekk ak lu nekk. waaye mën na ko nee bokkee. waaye mën na ko nee bokkee nag. am na ñu nekk am na ñu nekk ca bitim réew. ñoo ngi yónnee ca kër ya nekk. ñoo ngi yónnee ca kër ya ñu nekk. ñu togg ay añ. ñu togg ay añ. di ko indi ci liggéey bii. ñii joxe na njëgi ciment. ñii joxe na njëgi ciment. ñii joxe njëgi weñ. ba ci kafe gi ñuy tàngal sax lu ne rek indi nañ ko ci liggéey bi fii sëriñ bi nee na ñoom ñii di wax ak yéen li ëpp fekke nañ ko ci liggéey yi lañ fekkewul fekkeel nañ ñu ko ndax nettali nañ ko ñoom waaye sëriñ bi nee na liggéey bii waa Mbàkke nag am nañ ci ndam loo xam ni néew naa am ndax liggéey bu ne fab nañ addi indi ca yu bëree bëri yi ay ndox lañ yi ay ñam yii ah, di ay jumtuwaay waaye liggéey bii nag benn tolloogu ni moom ci liñ fi indi te lool lépp nag ah, sëriñ bi nee na suñu borom daal xañ na ndimbal lu mu bëgg a dimbali jaam ñi ndimbal lu mu bëgg dimbali jaam ñi rek la te liñ ko gën a yaatal nag bokk na ci waa télé bii ca bitim réew. ña ca bitim réew. lu ñu bëgg-bëgg te gisuñu. lu ñu bëgg-bëgg te gisuñu. Ah, waxe kese nag neexul lool. waxe kese waaw mënut a neexut a rëy waaw. faaw na nga am loo dammalee. Eh? kon sëriñ bi nee na waa waar wi tii bi si jërë ngeen jëfati. ñu ngi ñaan suñu borom barkeel liggéey bii ngeen di liggéey. yàlla na ngeen ci am ngërëmal ñu baax ñëpp. ci daraje liggéey bii ak borom liggéey bi sëriñ bi nee na jëfati ci tur nag kër gi di sëriñ Fallilou Fall jëwriñu sëriñ Modou Aminta ak way juróom yi nga xam ne nag da koo jël teg ko seen kanam ak kay seen kilifa ñoom ñëpp nag di jëwriñ Cheikh Ibrahima Fall ja di Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh Jëmb Fall noonu rek la ko Serigne bi mën a misaale ba ca ka lépp nag jëwriñ ju mag ja muy Cheikh Modou Mountakha jëwriñ Serigne Touba joojee ñu ngi ñaan suñu borom yokk seenu dund dolli ak wér akuk man ci darajey liggéey bi ñu nekk ak borom liggéey bi sëriñ bi nee na loolu day na nag kilifa gii doon waxee wax ak yéen mooy sëñ Moussa Mbar moom sëñ Modou Aminta Fall loolu loolu loolu loolu na ngeen ko na ngeen ko yóbbaale waaw Fall ko